Bienvenue sur Salam Vision. Thank you. loolu ñun ñoom tamit ñuy sargal Mamadou Gueye nga ñun ñoom tamit ñu def nag ñu def ko ci gannaaw Mamadou Gueye mu nekkoon lu jafe parce que ñu ci bari bi ñu daal seen volonté wane waaye nag pour ne lu teew ñu ngi nataal nettal ci gémmiñu borom la la dàqee ñu teewal teewal bi di ngay wax ba ki ngay wax moo mati bee bi di ngay wax mati bee mati bee defe naa mooy présidente femme Lam Sarr ba tax na sax na mati sa Vision ñu lay nuyu di leen seen bés bi nan ngeen ko dundee bi nan la ñu woon journée bi ndax am ngeen ci réussite totale bi moom ngeen dund na ma dëgg. waaw jërëjëf ñu di dèjà di kontaan ci lii ndax lii tey ngeen def lu jafe ci suñu mag fii ñu dëkk la tey muy Lansar amu fi woon kon bu doomu Lansar ñëwee taxawal lii tey doomu Lansar nekk fi tey ñuy def lii ñun mbégte lañ ciy am di leen ci gërëm bu baax na ndax lii mbégte na ci ñun ak yéen yematuñu fii. dañuy dépassé fii ndax nag fay ci say umu tànk ndax ñun lii lañ am te ñun yéen lañ am président Mamadou Gueye dina xel bu baax ci yéen ñun lancement bi la ñoom saa su ñu koy wax fii mooy base kon doomi base bi ñuy def ko bëgg yi te di ko def kontaan lay doon ñu ngi kontaan ci yéen bu baax a baax di wax ne affaire bi nii rek day ñor te it muy si am wax nañ leen ci boppam. defe naa kàngam yi ak kàngam yi benn bokkaay. yaakaar yëpp teewoon nañu ci bi. ñu nga xamante ne mooy enseignant maître Alioune Ba ko def kon defe bi yëpp lépp loo xamante ne bëggoon ngeen am ngeen ci mais tamit man la demee. loolu bés bi dañ koo def pour sargal Mamadou Gueye ndax boobu ba léegi ku ne xam na ne ñun dégguñu suñuy yëngatu te ñàkk dégg suñu yëngatu yooyu moo waraloon bis bii ñun ñu toog waxtaane ko ñun jigéen ñi ak góor ñu fi nekk ci Lansar. kenn ku ci nekk wax ci sa xalaat kenn ku ci ne wax ci sa kàddu ba ñu boole lépp mu nekk benn. ñun ñu jiital président mu Ndeye Niang mi nga xamante ne mooy présidente internationale tey jii nga xam dañ koo jiital ci lépp ànd moom ci liggéey bi moo oyofal ko loolu topp ci lépp ndax njiit buñ la joxee njiit. nga waroon a jiite leneen nga jël ay nit ne leen maa leen jiital loo leen def maa leen ko def loolu ñu koy sant di ko ndax cër boobu ñu kontaan nañ ko loolu ko dégte nañ ko surtout ko ci te affaire bi nii rek lay mën a demee faaw mu réussir Lansar lu mu def faaw mu réussir ci bés bi ñi ngi nga xamante ne bokk benn bokk yaakaar bi nga xamante ne àndandoo nañ ko di ko liggéey ñëpp ñu ngi leen gërëm di leen ci sant ndax affaire bi takku na takku boo xam ne ku lim juum baa doo matal te bëgguñu di lim ndax doomu Lansar xamul lim ndax njaboot la ku ñëw rek boole na la ci sa biir président Mamadou Gueye di moo tax saa ñu mais ñëpp teew nañ fi koo yaakaar ne doomu Djiddah Thiaroye Kao la ci commune bi la dëkk ak kenn ku ci nekk tey jii kontaan na ndax teew na léegi soxna Ndeye Diagne lan ngeen dëgmal lan moo nekk ci seen ah, campagne. ak lan ngeen fas yéene def liggéey boo xamante ni di ngeen ñaan yàlla fii seen leader du président Mamadou Faye balaa midi rek comme li ngeen bëgg yàlla may leen ko nan ngeen ko nar a liggéeyee. ah xanaa liggéey ko ci ni ñu ko daan liggéeyee rek depuis 2014. Mhm. simi suñuy daal takk ay daal yu dëgër. Mhm. dugg ci kër yi di waxtaan ak askan wi ndax ñoom ñooy votant yi di waxtaan ak askan yi askan yi ñuy waxtaanal nag. dañ leen di wax lan la ñu bëgg ci Djiddah Thiaroye comme ñoom ñu tontu ci lan lañ ko bëggee ñu recensé leen nag. muy liggéey boo xam ne depuis ñu waxee ba tey ñun ñu ngi ci tooguñu surtout Lansar Lansar mu ñu ngi ci liggéey bu ci ay ndax ñu ci boobu ba léegi te tooguñu tey ku nekk xam na ne saa bu ñu xëyee liggéey bu ñu wàccee kenn ku ci ne da ngay bàyyi sa kër ñu nekk ci liggéey bi pour rek bëgg président Mamadou Gueye am ndam ci ci ci ci Djiddah Thiaroye Kaw bi. kon soxna Mate am naa Salam Vision daal di laa jox di daje mais nag ñu naan bàyyi ñu leen ñun ak yéen dañu signé partenariat campagne bi yëpp dinañ ànd ak yéen fas nañu yéene dara du ci ump li nga xamante ñooy askan bi te nag Salam Vision yemul rek ci commune bi dafa nekk international fépp bu waay mën a nekk boo tappee Salam Vision daf koy daal di gis xam nga kon dañ lay jaar di jox di daje waaw jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax ndax lii suñu yëf la te sa yëf da nga koy téyel sa loxo bopp lii Mamadou Gueye moo koy téyel loxo boppam parce que yëfam la ndax ñun fii la ñu dëkk kon bu ñu gisee doom ju mel nii di def lii dem wuti ko mën ko defoon feneen mu indi ko ci goxoom bi mu dëkk duñu rafet du jàppale ko ci ànd ceeg moom ngay taxaw fu ñu taxaw na nga taxaw fa ndax yooyu yaa ngi doole kontaan nañu trop jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen a taamu di seetaan nga xamante ni mooy Salam Vision ak di topp li nga xamante ni mooy seen programme tey nag defe naa ne am na lu rëy loo xewoon ci caare gi dakaw mais nag ñu naan nekk ci gémmiñu borom nga xamante mooy Moussa Diop secrétaire général parti bi ba na nag tey dañ doon investissement mooy de kenn ku nekk xam nga ci caare gi na nag dañuy daal di yokk ki nga xamante ni mooy Moussa Diop di secrétaire parti bi mu daal di wax tey seen journée bi lan lan woon ak journée bi nan lañ ko déroulé waaw ah. Salam Vision jaajëfal bu baax di kontaan tamit ci seen liggéey. di présenté bu présenté wu ma maa ngi tudd Santo. nekk ci benn parti bu bokk coalition benn bokk yaakaar euh, la convention citoyenne kon maa ngi fay le secrétaire euh, permanent. nekk aussi le coordonnateur de la coordination de l'AMSA. bokk coalition benn bokk yaakaar. Euh, tey nag ñu wootoon fii donc célébrer le président Modou Dieng Omar Sow ci mel ni le commandant Momar Diop la présidente Adja Sophie Ndiaye si xaw ma général bu waa gox bi ñëwoon na. bu mel ni kàddu politique affaire yi. ñëpp ñëpp ñëwoon ko formé xam ne. ci loolu sax laa doon bëgg ñoom Moussa. ndax da war a jàpp ni ñu ci bari bu ñuy defal bu ñu dara dañuy bëgg li nga xamante ne bi doxewul noonu. bi doxewul noonu ndax bu ngeen déggee ne seen président dafa ñu da ngeen tax ko def te naa ne lu ngeen dundee des ndax réussir total euh, euh, li li li fi am tey. Mhm. li ngay wax rek juróom jaww yi nag ñuy nataal fi am vraiment ñu sax fi ñoo bett bett nañ bett ñu ko dañoo nekk benn parti am ay bànqaas am ay nit yu fa nekk donc bu jàppee ni su président Modou Gueye absenté rek duñ duñ def benn activité kon def naa li ñuy war a dëkk suñu fa dañu ñëw dëkk fii Lamsar bi doo fi Fapal moom nekk suñu candidat ñu ñoo ko war a invité ñu ko Lamsar ñu wan waa Lamsar kat kii mooy candidat askan bi taamu ci ñu gën a incité def programme bi à chaque fois bu ñu jàppee programme rek ci euh, au niveau ci parti bi wala ci événement yi amee dañuy gis ne ci président Pape Sané ñu di koy lancé défi. Uh-huh. moom daal di koy trop nag muy dem sax nee na amoon na sens là da ngay yàqal li def li ngeen def. vraiment bi mu demee sax jàpp naa ne la réussir uh-huh. parce que ay naataal moom. Uh-huh. sax tey bi ku mel ne Omar Sow nekk fi ku mel ne Malick Diallo nekk fi ku mel ne Badou Diouf nekk fi nga renvoyé ko kon ñoom ñu ñëw seen kër vraiment ñëpp ñoo ñoo yem ay borom xam-xam lañu ay borom jom lañu ay borom ngor lañu donc bu ci kenn manqué rek. ñu si ñëpp ñoom ñooy dem si nga xamante ne moom ñoom ngeen àndaloon ci liggéeyam gis naa ne liggéey bu métti la woon nag gis naa ne boobu léegi toogu leen taxaw na ko bés remisé mais defe naa ne am ngeen ci. réussite totale bi ngeen xamante ne moom ngeen ko kon kon ñu ngi leen di remercier. ñu may njëkk a remercier ngeen jox leen dig daje defe naa ngeen ko salaam moom dig daje danaa bala bañ ak maanaam. balaa boobu sax dina jox ay yeneen dig daje mais daal li may njëkk a remercier mooy Salam Vision. parce que vraiment ñoom dañoo ñëw am nañu dañoo bokk ci mbir mi. te ko ñu benn charge. ndax tey lii événement bi nga koy nga koy couvrir en direct di ko couvrir ci ay yeneen ay yeneen éléments. laa doon ci xaaj te kon loolu vraiment wax dëgg si daal day wax le président Modou Gueye aussi mu xam ne waa Salam Vision jàpp nañ ci bu baax a baax beneen bi topp mooy may remercier suñu jigéen ñi suñu góor ñi vraiment mate nañ ko naa tudd nag ku def lu baax ak coono foo ngi nga xamante ne moom tey dinaa président bu baax parce que ko di ma ci nekk doom di gërëm Mati Bey di gërëm Ndeye Ndiaye di gërëm Sow Ndioub di gërëm Kaja Sall Kaja Diallo di gërëm Bambi vraiment fois bii daal maa ngi leen di gërëm di xamal daal ne vraiment lii nag dafa rëcc ñun ma koy wax le président moom ñëw na ko vraiment lépp loo jàppale say femmes. dañ ko yokk ci vraiment li mu amee réglé yomb la ñuy jaajëfalaat ñëpp di jégalu ci kàddu yi. les frères yi ñu wax ba ñu nous sommes dans l'ombre dañu war a gën leen bàyyi ñu wax kon bu ñu demee ba toll fii ba dañoo leeral lu bëree bëri di wax nag euh, euh, président. bu déggee na nelaw le 23 janvier incha allahu rabbi incha allahu rabbi midi une heure dina fekk ñu jox résultat yu yu concret jox ko mairie di jaare ko ci ñu mën a séddee. mais nag ba ci yokk information rek. am nañu journée de consultation gratuite. Uh-huh. du premier au quatre. mais bi fii carrément da nga doon ko daal di suñu jaay. Macky Sall moo ko may. ñu ngi jox benn rendez-vous boo xam ne bëgg naa ngeen teel a woo seen taxawaay man muy le 11 décembre. moo nekk nag investir le président Mourou Gueye Kane daal la ñu leen jaajëfalal baax ñu ngi ci kàddu wax ba asalaamaaleykum. yooyu dégg na sax ñu ngi lay sant di la gërëm kàddu yi ñu fi la topp am na solo leer na nañ defe naa ne nag kenn ku ci nekk xam na li nga xamante ne moom ngay def ñun bi ñëwee suba léegi ñu gis nañ sa njàmbaate gis sa volonté bi nga xam ba tax na bés bu réussir nag partenariat tellement yéen incha allah dinañ ànd ci i jotaay lépp loo xam ne day laaj ci kottu la rek ko moom boo xamante ne famille Mamadou Gueye ñoo ko doon def Mamadou Gueye nag léegi kenn waaye nag li ñu naan nettali ci gémmiñu borom la daatee tungu na du teew ñuy nataal ba tax na Salam Vision demaloon na leen fa. xoolal leen lan moo xewoon ci journée bi mais journée bi nag dañuy bàyyi ki nga xamante ne mooy seen présidente mooy soxna Ndeye Diagne présidente bi nga xamante ne mooy seen présidente nationale sax internationale lay wax non soxna Ndeye Diagne yow fi salaamaaleykum seeti tey ñu gisoon ne benn jour journée bi ngeen tudd la def bi nan la demee woon ak lan ngeen baax di di nuyu waa Salam Vision yëpp ndax suñu organiser journée. Salam Vision ñëw kon jàmm yi ci journée bi moo ciy mujj ndax salaam moom jàmm rek lay tekki kon ñu ciy am mbégte bu baax rawatina nag muy suñuy ñoom leen di jaajëfal seen taxawaay di leen ñaanal yàlla tamit li ñuy liggéey yàlla def ci ndam def ci barke yi macha allah nag ñu taxawal journée sargal Mamadou Gueye président Mamadou Gueye ku ko ku ko xam-xam ko ak ay seen jàmbaar ku ko xam-xam ko ak Touba Pikine ay numéros yi fi mu ci mën a kon su wëññeekoo lépp lu mu amoon wala lépp lu mu mën ñu delloosiwaat ko ci kooku Lal bii ba président Macky Sall xool ko ci ay jëfam naw ko lool naw liggéeyam tam tànn ko ci biir tànneef yi teg ko ci kanamu Djidah Thiaroye Kaw ci kanamu Benno Bokk Yaakaar bi yëpp ngir mu diriger maire Djidah Thiaroye Kaw kon ñun li ñu war mooy delloo ko ñu koy sargal ko loolu mooy sababu bis bi tey

dëggal nañu président waxi waaw xam nañu ne seen kilifa gi du cuune ba leen di tànnal cuune moo tax ñu ñoom ñëpp ku ci nekk delloowaat si mébét delloowaat si bëgg-bëgg jiital ko ni ko jiitu topp sa ginnaaw faxasal la yoon bi baleel la yoon bi layal na ko ñu ànd dugali mairie ba loolu tey jii seen wisi bi ñu wisi loolu la ndax mënoon nañu nag président nekku fi kon ñoom na benn nit wala ñoom wala ñaar waaye ni ko daan defee bu fi nekkee moom lañ ko defee tey bi fi nekk tey ñoom ñëpp a teew ñu leen di gërëm nag ñoom ñëpp di sant di gërëm le coordinateur Mamadou Diop nga xam ne moom bu mu dalee wax boobu nag saa sax tànn na suñu yaay Sophie Ndiaye moom suñu yaay la dañu ko dañu woo di gërëm di ñu yedd di ñu wax ne ko suñu di gërëm alliés yi yëpp ndax ñoom ñëpp ci jàpp nag ci nekk am na touche booy indi pour que ñu am te ndam bu dee 100 pour cent lañ bëgg ku ci nekk dugal ci loxoom ci la mu mën indi ña mu fa mu xam ne ñun ñii mënuñu fàtte a. waaw defe naa seen journée de a defee campagne bi parce la ñu def ba wala soxla lay ñëw ñu jël ci wàññi ñu ci dafa dafa waaye bu ñu jëlee ki ñuy wax Malal Diallo moom ci fii kon suñ ko jëlee moom mu nekk directeur u campagne moom dina nga xamante ne bii peut-être ñun xamuñu ko mu zone yi nga xam ne ay hors lañ sax tey ba tey jii da caa rek fas yéene nañ moom ko waxal boppam dina def lu mel nii kon xam nga ni ay kàngam fu ñu dajee. ñoom ñëpp xajuñu ci kenn wala wala ba bay xeexal moom kon dañoo bëgg ni suñu adversaire yi bay boo ñu teel a sawi ci tënk te teel a nangu ndax teel a nangu nag day yombal ay duma kon dañ leen di wax rek ni leen nañ leen nañu teel a nangu ndax jël bi mën a seet parce que bu ñu nangu ba jël bi day métti te bëgguñoo jël bi métti parce que ñu nangu ñoom dox la jënd caare yi tam boobu ñun dina ngeen di am na salaam bi ñoo xam ne dinañ ko di tax léegi sax man day ñëw ñëpp bee dem si ñëpp daal di def campagne bi rek ñu fas yéene waaw dañuy remercier bu baax suñu njiit nga xam ni. ñoom ñoom lañu àndal ci bis bi. ndax nag mënoon nañu président loolu day ñëw waaye boobu ba ci dafa ne moom comme nee na lu mu wax moo ko wax lu mu def moo ko def kon tey jii mu dañ koy beral mention spéciale waaye di beral ñu nag jàmbaaru jigéen ñi nga xam ne lu ñu duggul baaxul lu ñu ànd du dem lu ñu organisé wul du neex. ñuy bàyyi seen i nelaw bàyyi seen i kër nekk di porte à porte ñooñu amuñu seen fay. ñu leen di donte seen bopp la ñuy mm-hmm. waaye waaw góor du yokki mbagg waaye dina tax a sawar. Mm-hmm. kon ñu leen di waaw góor yi tamit ñu ngi leen di waaw góoral ku mel ni Moussa Diop tëddatul nelawutul ñu ñuy wax les amis de Modou Gueye nga xam ne ñoo àndandoo xale boo ko gisee gis leen ci euh, seen tamit ñu ngi leen di defal mention spéciale waa daal ñun góor mag jigéen ndaw imaam bi délégué bi ñëpp mention spéciale waa ay numaan pare waa Medinatul mun a pare bépp responsable boo xam ne rek yaa ci gox bi ñu ngi lay jaajëfal di la wax ne jërëjëf di la cat sant boo xam ne am na tàmbali waaye amul demukaay ñun daal suñu xol sedd na gërëm nañ leen sant nañ leen waaye nag di gërëm la presse parce que presse bi ñëw nañu wuy si te dañ koo def ak laabiir dañu cee jàppale bu baax amaana tey jii am na foo xam ne wër foo war a yegg waaye ñoom dinañ ko fa yeggal kon ñu leen di jaajëfal bu baax à travers Salam mm-hmm. ñuy di ci région sax day àndal ñu mm-hmm. kon ñu leen di yàlla ngeen am i matériel am télévision mm-hmm. am lépp loo leen mébét ci li ngeen di def yàlla defal leen ko defal leen ci lu kawe seen jox ñu ànd ko ak yéen nag ngeen di ñu gunge ci campagne ci élection yi nañ ñëpp sant ñëpp. jërëjëf soxna Mbaye ñun ñu tamit ne beral dañ ndax nag Fatou ba nga jàppee ba léegi bàyyi ñu te fu ñu nekk nga fekk ñu fa di ñu wutal ñu ñuy fésal chaque jour nga ñëw ni signé leen partenaire rek dem leen fii wax leen lii kon loolu ku ku laabi moo ko mën kon yow tamit li ngay yóotu ci média yàlla ñu ko yàlla defal nga am kii bu kawe sa ndax soo amee ñoo am du soo yokkoo ñoo yokk kon ñu ngay ñaanal yokkute ko ñaan nag di ci suñu xel macha allah kontaan na ci yow. saa moom suñu frère la. ñu bokk sëñ Touba bokk lépp ñu koy bàyyi say jeexu bi rek mu mu mu yëkkatil ñu ko waaw mu yëkkatil ñu ko defal mbir yi rek. macha allah kontaan nañu. suñu ma seetlu gannaaw bi ngeen ñu wóoloo da ngeen ñu bàyyi di def toog ci suba ba léegi nañ nag sonn nañ man moom li ma leen naan xam ngeen nekk dafa xaw a bitte comme bëgg di toog fi nga toog rek ñoom ñuy def wala léegi am ci solo macha allah ma di leen ñaanal di ñaanal ki nga xamante na ko yàlla defal jàmm yàlla ko xéewal lii bëgg-bëggam la ndax xam naa ni bëgg-bëggam la parce que tamit nee naa leen liggéeyu média dafa métti li ma damay faral di wax daal mbirum jinne la parce que mbirum jinne nekk loo xam ne da nga ciy sotti rek yàlla dëgg moo ko sant nañ ko gërëm nañ ko bi leen wax nag ci yéen journée Mamadou Beye bi dalal nañ fi ki nga xamante ne mooy Moussa Ba Moussa Ba naa ne mooy secrétaire bi gis ngeen li mu def liggéey bu am solo ñu dalal fi tamit ki nga xamante ne mooy présidente femme Lansar yi soxna Mati Diop mu am solo ñu dalal fi ki nga xamante ne mooy seen présidente présidente bi nga xamante ne lépp képp bu nekk rek te bokk ci li nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar rek ci Lansar defe naa ne moom mënul ko am solo moo tax defe naa Salam Vision miin na ko yàgg nañ ko dalu ci yu mel ni tamit li muy wax ci moom ne ndax moom it saa yu ko soxlaa jóg bokk ak ci liggéey bi te ne ñu leen koy waxee Salam Vision dafa fas yéene signé ak yéen partenariat ci campagne bi lépp lu ngeen dox ñu dugal ci loxo ndax Salam Vision tamit ci gox bi la dëkk te ñu naan lépp ci gox bi la jëm kon mbokk yi jërë ngeen jëf. délégué de quartier Lansar di suñu di El Hadj Seydou Lam di nuyu délégué de quartier bi di nuyu imam bi ak notable bi fi nekk yëpp. di nuyu délégation bi nga xamante ni ñoo fi le président Mamadou Gueye tey su ma si limee Mamadou Diop coordonnateur benn bokk yaakaar lim ci monsieur le maire Aliou Badara Diouf lim si Omar Sow PCA lim ku mel ni Bawar Baba Si lim ku mel ni Matar Dieng lim ku mel ni sama grand Ousmane Ndoye ak Moussa Ba lim naa ñëpp bu dee si wàllu soxna yi su ma jëlee nuyoo bi teg si loxo yi suñu yaay Sophie Ndiaye mu jox mu tegal ma si loxo sa mag Ndeye Niang mu teg si loxo yi Aïssata Diallo ak ñoom suñu yaay Absa Diakhaté ñoom Mati Bey kon nuyu naa je pense soxna yëpp fàtte moom Malal Malal Diallo ndax moom ma suñu directeur de campagne moom mooy le président Mourou Gueye man nag euh, kaddu yi day kaddu politique du kaddu yi propagande ndax jàpp na jaay nañ ba pare ku ànd ak Alioune Badara Diouf ànd ak Mamadou Diop ànd ak Omar Sow ànd ak Moussa ànd ak Aïssata Talla ànd ak Sophie Ndiaye ànd ak Malal Diallo non kooku te kaddu yi kaddu cant la kaddu sargal la ki may sargal muy le président Mour Gueye ki nga xamante ne mooy xarafal suñuy doom ak suñuy jabaat ki nga xamante ne tabaxee ay salle informatique suñu école yi. ki nga xamante ni moom moo ñuy organiser ay fan zone ki nga xamante ni jigéen ñi ngir ñu dajaloo mu dem seen lekkat jox leen xaalis ñu liggéey ki nga xamante ni mooy formation yu jeunes yi kooku lañ tey à moom ñu sargalaale ñi fi teew ñëpp jërëjëf bi yàgg na guddi na waaye faaw ma sant suñuy mag yoo xam ñu ngi si koñ bi di ko teg si loxo yi ci bëkkan ay cabinet Modou Gueye maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax si bi lépp lu ñuy def yéen ko moom te yàgg naa ko wax ñoom Mbaye Dieng ñu ngi si maa ngi maa ngi gis ñoom Ousmane Sène ak groupe bi yëpp sant nañ leen baax gërëm nañ leen baax yéen la ñuy liggéey yéen moom bis bi xam naa kàddu yi du bëri li si wax wax yëpp ñu ma jiit wax nañ ko sant nañ baax gërëm naa baax kon ñu joxante rendez-vous le 11 incha allah meeting de mobilisation bi ñu def AG d'investiture bi ñu def la le moo Modou Gueye nañ ko waajal Modou Gueye Lansar la dëkk ak ayte euh, suñu soxna si jiitu réew euh, madame Faye Sall c'est du premier au quatre ñu waajal ko képp ku am ku feebar bëgg a faju bu ñëwee dina faj te du fay dara ndax madame Faye Sall jàmbaar la kon maa ngi ak ñëpp ñaan gërëm ñëpp li nga leen di bàyyi ak jërë ngeen sur Salam